kor weeru koor kër nugum nugum mi weeru koor siru man musuma gis lu mel nii kër nugum nugum dañu mel ne yow doo nit ku baax mel na yow musoo am lu baax musoo xam lu baax dëgg la nit da ngay am fulla yow wax si loyer waaw ah

dengar ya? dengar iya, ah, ya? ah am nga koor am nga aju su ma dee boo jullee di ma tooñoon li moom li moom la man doonuma ci dara ndeysaan waaw xanaa kay ñaan ñi suñu borom fekk nañu ko bari di ma bi julli bi ah yow ñaata nga ah fukk laam rek nag ku ne ku ne gis mooy jël suuf si boo boo baanee ñoo lay man nag bi may woo. waaw ah, boo baanee ñoo lay puus bi muy woo. pour man imbécile yooyu nga xam ne seen oto yi du am gaasu waar. ke seen carburant bi jeex. benn waay nee na ma keroog puus ma ma ne ko tax ma ne ma damaa baan gasoil ma ne ko baan gasoil du baan loolu baan xaalis la. ndax <laughs> léegi nag. waaw jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf ku baax jërëjëf kala sore ne ku yabul man nag wàcc naa. wàcc jëm fan. damaa baare damaa bàyyi. lu loolu juróom benn junni laa amoon problème am a fukk ñeent yi bénéfice la maa ngi ci kër gi waaye lu tax nga gàtt wërsëg du gàtt wërsëg non non dama lay wax waaw nugum hmm. maa yow benn lan dëgg la de sa teraanga mooy sama teraanga walaay dëgg la si la ngaari mii nu jëm la ma la waxoon léegi hmm. billahi bu nu fa demee la ma waxoon laa lay waxaat a fi ne ay ronga ñam mën naa bu fi ne nga feebar feebar yàlla xel may dem direct ci yàlla lu jaar ci fenn sax te fi te yàlla la jëm direct nga xam bu fa demee rek mën na ne nii trois cent mille lan bu ko defee nga sa 50 ak fu ku ne <laughs> eh. am 200. 200 yow waaye ñu sala jaar ñu ñu dem waay. waaye ndax nga way waaye ñëwal rek ñëwal nu gën ko yokk yëf yi daal nii la demé yaa ngi dégg way man ni neex na ba nopi koor gi ren di da war a. moom lu ne lay def moom lu ne lay daj lu ne lay wax ko koor gi tangé kendo am jàmm. They no nugum me, they no nugum me, they no nugum me. Kar no nugum me, kar me. dal leen ak jàmm ci cabine médicale Serigne Abdoul Ahad Mbacke Kéemaan borom produit yu efficace te baax yaa ngi nii mani la jigéen ñi bëgg a yokk seen fees am nañ fa vite fait vite fee bi mani la lu baax la te efficace amul benn effet secondaire mani la beneen poudre bi nag nga xam ne huile la produit huile boobule kaay leen gën jël si ko mu yokkal leen seen awra yéen jigéen ñi ana góor gu ci bëgg a yëg boppam am nañu liquide puissance bi nga xam ne dafay éliminer impuissance dindi ko ba mu set ci yow poudre bi nag moo ma ne dafay yokk awra góor ci ning ko gëna bëgge bëggee suñuy produit naka amul ben effet secondaire tay tamit nak ñu gëstu la jaare ko ci ay laboratoire bañu certifier ko ñu soog mëna jëfëndiko manila wo mani leen ñu gaaw yéen ñi soxla ci le produit ci 77 086 27 29 wala nga def 76 635 54 30 wala sax nga fekk ñu norfar ci wetu prios Dorée bu norfar yi sore wuñ fofu lépp lu way bëgg bu accès ba ci Serigne Abdoul Ahad Mbacké keman da ko fa fekk Eh, leen di lamu mulai lay wax yaa ngi góorgóorlu waaye dama lay yokk sa góorgóorlu dama ci bisu sen ndax sen sukkar score yi nga xam da ngay ya, gis ku ko kedi, romb ñoom dëkkal ñoo xam te amuñu dara bu ñu añee duñu reer nga dem yóbbul ko koo xam ni gis leen ma nga bëgg wala boo ku la ci nga bëgg. ma defal. rek defal kanam xaw ah, ma fa xanaa seetaan contre Eumeu Sène Modou Lo tegal ma siis fi ne kay doonu tut contre Eumeu xanaa Balla Gaye <laughs> Balla Gaye bu yëkkati kay nga xaw ma Bombardier dama laa ko dama laa sa bismillah. jàmm ngeen. jàmm rek bismillah bismillah. man rek ci ñam ba ndeysaan alhamdulillah ya makallah ya makallah assalamu alaykum ngi di sal silla silla silla ah señ job job ah job la job ah job la ah job la waaye yow doo doo ngay ci kii bi moo ne ma fee kër si Baye Alla Sylla bi. ah Alla Sylla ah. men Baye Alla Sylla men. ah ndeysaan ku baax waaye kii de Baye Diop la. <laughs> Diop kii sëñ Diop la Diop benn ndànk ndànk eh ndànk ndànk ndànk. nugum ndànk ba Baye Diop ànd nag yàlla. feebar sore naag dee. feebar sore naag dee. Mm-hmm. ah yàlla moo ànd ak way way mu ñii. ah yow dong da nga fee nekk doomu aadama yàlla da laa sàkk yow kat bu ñu leen di teg la ko doon koy doy roo ndax xam ne lu lu yàlla ak neen la hmm. Hmm. ndànk rek ndànk rek bàyyi tuut daal ñoo ngi jégalu ci ak weeru koor wii mu tombeel ah, ah, nga xam ne ñëpp a ngi woor hmm. ñëpp a ngi toog seeni kër waaye kii sun ma woon dama faatu na dama ko weral ci mbedd yi laa ko feew ndeke bi mu ba fi mu feebaree léegi yàgg yàgg na ndeke moom mii daa dajale ay feebar ci ci yaram naka la dem hôpital fu nu bëtt ab persiction du dem déedéet yaram yi du bëtt fi ne yuxumal dara rek waaye bi ma demee bi ma demee rek di ko jëndal ay garab liñ ma bindal ci ay ordonnance ñu ngi toll ci cent cinquante mille ma war koo jënd bitee liñ ko war a sampal mi ngi toll ci cent mille dama daw ma. jërul jooy jërul jooy sëñ jërul jooy. dama daw ma dara. santal yàlla te xam ne. suñu borom man lii di doole laa am ma dara. ndeysaan suñu borom ci waxam ni mu def rek. am na am bu demee xamu fu ma jëm. non non mais alhamdulilah kii du dem du dem du dem. léegi doole rek jàmm rek. jàmm rek ngeen na la jaar. attention bi koo takk moom. waaw ndànk rek fi ne nii ni nga gisee nii. station bi dañ koo takk ak fi di feer. koo takk ko bu tag bu ñu ko tëkkutoon ba tey damay dem dalal dalal feebar taxut gaañu. feebar taxut a dee. santal yàlla bu baax. santal yàlla bu baax sant leen yàlla bu baax. nga xam ne suñu borom lu mu def rek. am na lu tax. tayit mënoon naa gën a ñaaw ci ñeneen dul nii. tayit kon ni leen mel nii. da ngeen di sant yàlla rek. jaam day na nangoon dogal. waaw. waaw lu nu waay dimbalee rek bàyyi àll si la sax lan yaakaaroon na moom moom kër gi mhm. waaye lu nu waay dimbalee rek ñu dem kër ga mhm. ah jërëjëf man ah, ko bindal sec waaw bindal ko sec ñu jaay baa bari moom njëgu baa mbay te hmm? lu fi ne ñu yóbbu benn la rek da dem rek génn ko ah, rek déedéet déedéet xala

ñaari junni la waaye bëggoon nañ mu gën a kii sax bu noonu seeg sax. ah kii yëpp seeg amul fon la kii yëpp seeg bi. ah déedéet moom kay léegi bindal ah, seeg <laughs> mën ngaa bind. Ah, ah, ah jël leen lii rek boo lëggee ngeen jaaraat fi rek. te ñu rëddal seeg bi rek. rëddal nu ko rek. comme que kii ngeen loolu rëddal xëy bu nu ko. xoolal def leen nii rek. comme que nii ko nii la xës dogalee moom nañ nangu dogal bi rek waaw jëlal rek bu soobee yàlla bu ëllëgee. ah mun na mënoo bi saj rek baax na. ma ne ko ci ma. ma ne ñoo déggee ah, jaaraat wala ngeen jaaraat si quoi. ndànk ndànk ndànk ay ndànk bu ma wéeru ndànk. ndeysaan ndànk rek defal ndànk mu ñor rek mu ñor rek mu ñor. ndeysaan ndeysaan muñ leen rek. jërëjëf sëñ bi waaw. ndeysaan métti na. Ah, Ah, alhamdulilah déet lii sax est-ce que ñoom ko fi. Ah, nekk fi woon den xoolal xoolal ba xam. ah cinquante mille francs asaka. bi ah. cinquante mille francs asaka. ñi ndekete yóote mu ngi wër di wax. lu dul dëgg la mere danaa danaa xabat man lii problème bi mooy man ko maa maa ngi man man kan nga ma wax ne ma ne ma ne ma si la fii eh dëkk yow nag da ngaa bëri dafa loolu de sa sëriñ si la si eh sa sëriñ bi dëkk fii doo nga am kii sëriñ Moustapha Bass waaw sëriñ Moustapha Bass nii la jàngale nii la jàngale ay dongam donga yi dañoo sobe bu yebal léegi nag nan ñam ci suñuy cinquante mille te dem ñibbi xanaa bu subaa ma wut ku ma lebal wala nga aal ma sa vingt-cinq mille eh lan eh lan eh eh nugum eh eh eh affaire yi mu ñor yow li bàjji woo ko ba ban ban jóge jógee fee ak li roogu méttam su falax falax ji ci biir nekk da feebar feebar lu ñuy ay addu kalfa de sàcc nañ de. léegi kañ ko mujjee sant Mamas feebar rek kaay kaay kaay kaay kaay. bu soobee yàlla dinañ xam ne man lañ koy jëflanteel. rek de. eh eh Diop Diop say dix mille. dama ne. bu leen ah, ma fonto wala xanaa du kii moo feebaroon ah, léegi. yàlla na ko mënut a wéralaat ci ci. karaama yàgg na fi ah, karaama li moom gën na fi. yow dimbali may leen ma. may leen seen i pexe. ah ah du dóor ma ngeen naroon a def. waaw tey ne nag. ki ko man ak ki ko jëm duñu maanaam. téye leen ngeen wala. ah man déedéet moom leeral moom. jëlal li nga moom dox li nga moom. nga yow booy jóob. pardon ah xaw ma noonu da booy jóob laa lay wax. <laughs> bu dee da nga réew ñun dañ lay ñuus ca kanamu jabata dama lay wax sa morom moo naan dama lay ñuus jox ko fii nii di wër di fen dërëm man maay bàyyi si la sa si gën yéen ñi wër di wax yéen ay ci mbedd di wër ay bàyyi si la na ay bàyyi si la da ngaa banque yow xanaa yow xanaa dama lay ñuus moom lu ne lay def moom lu ne lay daj lu ne lay wax bu nugum nugum mi nugum nugum mi nugum nugum